amin amin bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja allahumma irham ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rahmatan amatan mbokk euh, vraiment dañoo kontaan lool lool euh, équipe bi fi jaaroon bii passé ba vraiment ñu téewaat euh, Amadou Wuri Diallo ne ko il faut nga ñëwaat nga accompagner sa doomu baay bi Adama Diallo waaw ñu jox leen ngeen présenté wu après ngeen dugg ci njàngale mi incha allah Amadou Ry encore bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maa ngi tudd Amadou Ry Diallo nekk école supérieure polytechnique de Dakar département gestion quatrième année macha allah bismillah bismillahi rahmani rahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد maa آه، تدو آدم جالو Diallo جانجي تي دار daara Hamsa بأستاذ عبد الخادر جاتا تي تنجي تي تنجي ما شاء الله الحمد لله كلا كون آه، أحمد Wuri Euh, nit ñi kontaan lool macha allah di sant suñu borom di bëgg a delluwaat nag ci njàngale mi te ñëwu leen fi comme kii da ñëw ku jàngale. <laughs> Amadou Wuri lan nga bëgg jàngale waaye tegal dimbale rek tegal baaraam ci aaya alxuraan waaw bul wax sa waxi bopp bul wax sama wax bul wax kenn bismillah alhamdulilah li nga xam ne bëgg nañ ko fàttalanteeg mbokk yi moom mooy jullit bi dafa nekk xam borom subhanahu wa daf koy yombalal ay mbir ba nga xam ne lépp loo xam ne moom mooy angoisse li nga xam ne moom mooy tristesse mooy lay nekk loo xam ne jullit bi day def kémtulay kàttanam ba loolu duñ ne du ko gaar waaye da koy atténuer da koy atténuer borom subhanahu wa taala di dalal xelu jullit yi ci buntu boobu noonu di leen wax ne إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من ñi nga xam ne dañu ngi naan rabbuna allahu suñu borom de moom mooy allah subhanahu wa moom la ñuy jaamu te duñ ko bokkaale kenn summa staqaamu waaye gannaaw loolu ñuy tënku ca la nga xam ne moom mooy samay digle ñooñu noonu de fala xawfun alayhim ñooñu duñu am la nga xam ne moom mooy ragal wala hum yaxzanuun waaye ñooñu tamit duñu am lett loo xam ne moom mooy ab njàkkare mhm. kon loolu borom subhanahu wa taala mu koy dalalee ñi nga xam ne dañ koo gëm kon ñi nga xam ne dañoo nangu ni yàlla mooy seen borom bu nag tegu ci raay bu jub bi di doxal lu jub euh, yàlla dañu am ngërëmu yàlla quoi te no duñ tiit duñu ragal euh, yaakaar naa ne am na beneen aaya dina lazina qaalu rabbuna allah summa astaqam tatanazzalu alayhimul malaika boo ñaari be ñaari aaya lu wute la ah, ah bokkuñu ah bokkuñu voilà bu ngeen di noonu ak boobu dañoo dañoo nuroo donc kon presque loolu rek la parce que boobu tam malaaka bi ñëw naan bu leen tiit bu leen seen kër ci àjjanaa nga ne le waaw Adama Diallo sa doom baay bi macha allah yow indi tey naam euh, alhamdulilah ala kulli xaal euh, suñu borom subhanahu wa mu ngi ci quranul karim ala al aziz mu ne wakkeerlul ci ki nga xamante ne nii ku ku màgg la waaye itam ku bëri yërmande la mhm. euh, dañoo gis ni doomu aadama yi yenn saa yi dañuy dañuy lot dañuy soxla di wakkirlu si seen borom mhm. des fois nit ñi dañuy wut liggéey du ñu am des fois ngay faju doo am doo wér mhm. wala yenn saa yi itam yenn saa itam ngay jàng mais sa examen du demee noonu léegi borom bi tabaraka wa taala di ñu wax ne yow wakkirlu si sa borom parce que wakkirlu bi lan la da def li nga war a def ba pare leneen li nga xam te ni suñu domaine suñu borom la nga bàyyi ko ak suñu borom subhanahu wa taala voilà wér wér yàlla moo ko moom fajul après yàlla dina la jox wér kazalik naka noonu ci njàng meeg wër wërsëg weeg demee ni ki noonu mhm. wallahu alam loolu leer na waaw kon boog wàkkirlu ci yàlla dafa am yoon donc euh, boo wàkkirloo ci yàlla du tere nga def li nga war a def yow en tant que nit mu gars ñu ne defal li nga mën a def yow en tant que nit yàlla defal la yow li nga xam ne mënoo koo def defal li nga mën yàlla defal la loo mënul waaye ñëw rek bàyyilu ko ci yàlla rek daal ne nii rek eh, yàlla baax na <laughs> yàlla dalay seetaan de alhamdulilah loolu leer na njàngal mu am solo ngoog Amadou Wuri Diallo jël su nañ léegi ci waxu sallallahu alayhi wa sallam laabiru ñu ci tuuti naam la nga xam ne mun nañ ko jukki ci njàngale alayhi salaatu wassalaam موي ني داي خمال كيغا خامن موم موي جوليت بي ني نيت لا نيت لا دو ملائكه كو نيت لا لي واني نيتيم مو ترخيص مو جوم مو ديف لاغا خامن موم موي بكار وايي موي واني ناك كيغا خامن موم مو گن سي ньоญو نيت ньоญو نونو موي ني دلو دي توب دي ديلو سن بروم سبحانه وتعالى كوم نكو واخاي ني كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين attawaabuun mu ne mu doomu aadama yi dañuy juum dañuy def la nga xam ne moom mooy bàkkaar waaye ka nga xam ne moom gën wala ñi nga xam ne ñoo gën ci defkatu bàkkaar yi mooy ñuy dellu di tuub dellu seen borom subhaanahu wa taala ñaan ko mu jéggal leen te borom subhaanahu wa garanti leen ni dina leen jéggal. Mm-hmm. nga ni noo ko waxee. kullu bna aadama. Ah, kullu. kullu mooy mooy bàyyiwul kenn. na doomi aadama yëpp dañuy juum. waaye nee na ki gën ci ñiy juum nag mooy ko xam bu juumee. tuub dellu ci borom tuub dellu ci yàlla. waaw kon ndekete euh, yaakaar ni am na doomi aadama yu dul juum loolu erreur bu rëy la kon kon yonent bi dox kullu quoi doomu aadama yëpp amul ko xam ne ni doo def erreur yàlla na yàlla baal suñu erreur yépp waay loolu leer na euh, yaa Adam ginnaaw bi ñu dégloo suñu mbokk mi di wax ne baatu yentum alayhi salaatu wasalaam boobee di wax ne doomu aadama yëpp dañuy jiw ñu ngi ñaax suñu mbokk jullit ñi benn xadis yentum alayhi salaatu wasalaam bi wax ci loolu ci ne su saay soo demee ba fekk sa mbokk jullit muy def naka sudul noonu mu def njuumte na nga ko suturaal suturaal bi mooy da nga koy ci ruxu laayee ko biir nekko ko de maa ngi lay gis ngay def sàngam ak sàngam waaye nga bañ ko jéebaane ci biti comme ni ko nit ñi di defee ak réseaux sociaux yi ak jeunes yi ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci réseaux sociaux yi dañuy xamal nit ki lenn mais dañuy xaawi suturaam di ko di di ko di ko di ko vilipender ci ci réseaux sociaux yi ak ci dëkk bi. day dem ba nit ki day nekk ku xat fi mu dëkk wala day xat fi muy liggéey. yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan man satara musliman satarahu llahu yowma alqiyama hmm. képp ku suturaal ab jullit yàlla dina ko suturaal ëllëg yowma alqiyama. macha allah. allahu alam ah lii de de ko def ci réseaux sociaux yi dugal ko foofu xadis boobu waaw bu dee yaa ngi bokk ci ay kii daal defal ko ci kii nga dugal ko ci réseaux sociaux yi gars yi niñ fay yàqante du nga gis ko dañ koy yàq ba dootul jaar dara quoi waaw te yonent bi saa sam nee na ku suturaal jullit yàlla suturaal ko mais ku xaw yi sutura tam yàlla xaw sutura kon dey ah wata wat de loolu leer na léegi kon dañ ñëw ci jaamu yàlla rek Euh, bu ñu ñëwee ci jaamu yàlla Amadou Wuri Amadou Wuri dañoo bëggoon a xam benn waaye ngi nii di julli euh, maanaam dañoo dañoo xam daal am na benn julli bu ñuy wax kii euh, salaatu duha mooy julli yor yoor xaw ma ni di ko fay nag julli boobu lan nga ci teewlu ci koo xam ne ni benn waay bu koy julli saxal ko ni loo ci loo ci teewlu ay ngëneelam ak heure biñ ko war a def naam alhamdulilah heure li nga xam ne moom mooy julli yoor yoor yeneen ci bi alayhi salaatu joxe na ci ay yu bëri bokk na ci ngëneel yi nga xam ne wax na ko ci moom mooy julle ñi nga xam ne dañuy tuub di dellu seen borom subhaanahu wa taala comme ko waxee ci xadis bi ne salaatu duha salaatu awaabiin mu nekk loo xam ne day won jullit bi ne ki nga xam ne day takkoo li nga xam ne mooy julli salaatu duha julli yor yoor dëggantaan kooku non dafa bokk ci jaam yi nga xam dañuy dellu di tuub seen bàkkaar ngir borom subhanahu wa taala laabal leen sellal leen ndeysaan bon ban heure lañ koy faral di def waaw salaatu duha borom xam-xam li wax mooy gannaaw ba nga xamee ne jant bi fenk na ba jóg ba jóg jant bi fenk na ba allah bu ba nga xam ne zawal jot na mooy tisbaar buy jot mooy jant bi bu ñëwee ba toll ci digg bi balaa muy àgg foofu noonu intervalle boobu noonu mooy li nga xam ne mooy salaatu duha bu jant bi jógee ni rek ba taxaw lu toll ak xasab ñu ñu koy nattee ci quinze minutes jeex na loolu leer na am na solo eh, Diallo Adam dañoo bëggoon ngay xam ne saa ñu ne salaatul wusta mooy mooy mooy ban ak uh, yan njëriñam moo ci naan salaatul wusta mooy julli gi nga xam ne nii mooy mooy bu diggu bu diggu doomu bi quoi salaatu wusta moo xam mooy wasatiye bi quoi julli julli ñuy wax salaatu wusta moo ci ban naam euh, salaatu wusta hmm. su ma su ma teewloo bi nga xamante ne moo koy yentu aleyhi salaatu mooy julli bi nga xamante ni nii mooy bu diggu doomu waaw ah, alxuraan def naa indi na quoi naam mooy julli bi nga xam ne dig julli bu diggu doomu. waaw julli ñi di ko julli ci julli timis. Euh, su ma juumul yow ban nga jàpp. Euh, li nga xam ne ñëw na ci bunt salaatul wusta am na borom xam-xam ne dañoo gis ni tàkkusaan la. am yoo xam dañoo gis ni fajar la. tàkkusaan waaw tàkkusaan ak fajar foofu moo am ci xilaaf mais lépp ci ulama wi nee nañ mooy tàkkusaan. lañ koy tàkkusaan. donc julli takkusaan ndekete am na secret yu ci nag parce yàlla nee na na ngeen fonk julli ba mu surtout nag julli julli bu diggu doomu boobu mooy salaatu usta léegi mën nañ jàll ci deuxième tour bi incha allah euh, Adama jàlloo kii bi rek la indiwul euh, fiq bi bismillah delluwaat nañ ci alxuraan de buuri alhamdulilah buy ñëwee ci li nga xam ne moom mooy alquranul karim borom subhanahu wa taala day joxoñ ki nga xam ne moom mooy jullit bi won ko ni li nga xam ne moom mooy yërmande ci loxoom la ne waaye yërmande tamit moom moo koy jagleel jaamam bu ko soob ndaxte ngëneel la boo xam ne moom moo ko yor moom la borom subhanahu wa taala di wax ni yudxilu man yashaau fi rahmatih borom subhanahu wa taala di wax ci aaya boobu noonu ne day dugal ci la nga xam ne moom mooy yërmandeem ku ko soob mhm. kon ci coobareem lay dugal ki nga xam ne moom mooy jullit bi ci la nga xam ne moom mooy yërmande ba mu fegal ko ci nga xam ne moom moy safara mhm. waaye tabbil ko ci la nga xam ne moom mooy aljanna mhm. kon boog euh, wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin rek mooy euh, yal na yàlla soob yal na soob yàlla daal mu dugal ñu ci yërmande <laughs> amin voilà ak am solo yërmande rek mu am solo أنا مجالو بن أي باهي نعم الحمد لله أي بني باهي سني بروم بني باهي مبوك جلني ما أي بني الحمد لله سني بروم سبحانه وتعالى من يكوي دانكاف تسرت الخجرات يوحنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Masyaallah. Wattaqullaha innallaha innallaha wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Mhm. suñu borom subhanahu wa taala mu ñuy mottandiko mu ñuy wattandikoloo ñun jullit ñi mu ne leen ay yéen ñi gëm yàlla mhm. moytu leen di njort lu bëri parce que yenn njort yi yenn si njort yi bàkkaar la mhm. waaye tamit bu leen di nekk di espionnante seen biir euh, waaye tamit bu leen nekk di jau. seen mbokk jullit seen biir bi leen jëwante seen biir ndax kenn ci yéen bëgg na fekk yàpp meddu mbokk jullitam mu koy nekk di di di lekk loolu ni ngeen ko bañee noon ngeen war a bañee loolu te ngeen ragal yàlla xam leen ne yàlla de na allahu gafuru xam leen ne yàlla de moom jéggalaakoon la waaye yërëmaakoon la kon suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wattandikuloo foofu ñetti mbir mooy ñuy njort njort yu bëri waaye di espionante suñu mbokk jullit yi wala keneen kurul ñun keneen kurul suñu mbokk waaye itam di jëw mhm. yàlla mu ngi ñuy wattandikoloo ñetti yooy kon espion espionnage baaxul ah mhm. ak jëw jëw mooy comme lekk nit rek quoi loolu leer na euh, kon dañuy dem léegi ci dundu yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam Ahmad Wuri ban épisode dundu yonent mu nga ñuy génneel am njàngat alhamdulilah euh, li ñu mën a génnee ci njàngale yonent bi alayhi salaatu salaam ci dundam mu dee xissa boo xam ne bu dawlu yaram la mm. boo xam ne képp koo xam ne njiit la war na koo teewlu war ci jàngee lu bari mm. ndaxte day wan dëggantaan njiit naka lay jëfan jëflante ak ñi nga xam ne ñoom la jiite mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam am na ci benn saxaaba boo xam ne yàlla da koo natoo woon muy def bàkkaar bu mag mu di naan sàngara sahaba bi da daan naan sàngara ba mandi bu ñëwee ñu dóor ko ay yar mu defaat ko ñu dóoraat ko ay yar mu ay yar am kenn ci kiram ne ko yow doo rus yow doo rus ngay ñëw fii ñu lay dóor à chaque fois alayhi salatu wasalaam ne ko déet bul dimbali seytaan ci sa mbokk julit bul dimbali seytaan ci sa mbokk julit kii de lenn la mooy li nga mën ko ko mu nekk lu ci xolam mooy kii ku bëgg yàlla ak yonentam la kii ku bëgg yàlla ak yonentam la kon loolu mu di njàngale bu rëy képp koo xam ne yor na ab mbooloo yor na ab famille mu xam ne daf leen war a uuf ba lépp loo xam ne day créer dissension mooy dañuy takkalikoo mu xool naka la koy contourner ba nga xam ne dañuy mun a tënku képp koo xam ne mu ngi nekk ci ay njuumte ñu xool naka lañ koy xëccaatee ba mu ñëwaat waaye ñu bañ a. puis day wane sax ni nit da nga war a maandu ci mbiru nit. xool moom mi ngi gis si rek. mais yonent bi gis na waa ji ku bëgg yàlla ak yonent moo tax maandu dafa baax <laughs> gis nañ muy def dara nga yóbbu ko safara wóorul quoi seeto Adam naam euh, bisimilah événement bi ñu gën a marqué ci dund yonent bi alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam mooy benn waay bi nga xam te ne dafa ñëwoon fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog amoon ay gàtt yu bëri yu nekkoon ci diggante ñaari xur ñaari montagne hmm. mu daal di koy ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali boobu Anas ibnu Malik mi ñu koy nettali saxi muslim hmm. mu waxee ne waa ji mu daal di ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàtt yooyu yëpp bi daal di ko koy may waa ji nag gis ne générosité yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi mu toll ba waa ji di watat gàtt yi di dem ci dëkkam te doon wax ne yaa qawm aslimu aslimu ay yéen sama xeet dem leen ngeen tuubi ji dem leen ngeen tuubi ji fa inna muhammadan yuti ataa man la yaxsha alfaqara xam leen ne muhammad de day saraxe saraxe koo xamante ne nii du ragal du ragal ñàkk Muhammad mu ngi joxe joxe woo xam ne du ragal ñàkk waa jooju loolu la doon prôné générosité yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ci ah, li ñu li mën a jàngatee ci dundam alayhi salaatu loolu mooy wane yonent dafa tabe mhm. benn xur benn vallée bu fees dell ak ay gàtt ah, waa ji ñaan ko yonent yonent ko jëlal <laughs> allahu akbar waa ji dàq géttam dem ñib waaw waaye maye gétt yombul de non Moustapha moo nu man sallallahu wa sallam du suñu morom yàlla nañ yàlla fayal ñu ko sallallahu alayhi wa sallam ca allahu akbar voilà kon dem nañ ci final parce que yéen ñaar fii yéen ñëpp fukki pañ ñaar ngeen am alquran encore wëri naam la nga xam ne mun nañ ko jukkiwaat sallallahu alayhi wa sallam jukkiwaat ci li nga xam ne mooy alquranul karim bàyyiloo ko xel yi mooy suñu mbokk ñi nga xam ne ñooy étudiants yi ndaxte dañoo nekk ñoo xam ne dañuy sàkku xam-xam ci sàkku xam boobu noonu de borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy jox loo xam ne jullit bu ci tënkoo dana nekk loo xam ne dina ko ko yombalal mm-hmm. mu di lan mu di ragal yàlla mm-hmm. mu di ragal yàlla borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci suratul baqara ne wattaqu llaha wa yuallimukum allah mm-hmm. mu ne ragal leen yàlla ragal yàlla boobu noonu de soo leen fexee mu dugg ci yéen jeexintal bi mooy yàlla def leen di xamal daf leen di xamal bi maana yéen effort bi ngeen di def di jàng mën ngeen def effort wa sonn waaye dara du dugg ka nga xam ne moom moo sàkkale nga xam ne mooy sa xel bi moom moo lay yombalal ba loolu mën a àgg moom moo lay barkeelal sa waxtu ba nga xam ne lu néew ci waxtu ngay def pour jàng borom subhanahu wa taala yombalal la ba examen yi su ñëwee da nga ciy jàll facilement kon nañ takkoo li nga xam ne mooy ragal borom subhanahu wa taala jox nga sa mbokk étudiant yi conseil bu baax a baax ndekete kon boo ragalee yàlla da lay dimbali ci xam-xam quoi ah <laughs> loolu la ragal yàlla boobu day nekk da lay ubbil buntu xam-xam ba nga xam da nga am facilité am xam-xam voilà loolu lu wér a wér a wér Adama Diallo naam euh, ginnaaw ba ñu defee benn remarque suñu dëkk bi hmm. ren gii ñu toll nii dafa amoon ay mbir yoo xamante ne nii jaar na fi hmm. mbir yoo nga xamante ne nii mën nañ leen tuddee ay fitna hmm. fitna yu fi jaar yoo xamante ne nii ay bakkan rot nañ ci ba ay ay liggéey yàqu nañ ci ak ak yu demee ni ki noonu ñoo xamante ne sax amaana ñoom bokkuñu ci mbir mi ñoom yàqalu nañ ci. ndeysaan loolu suñu fàttali suñu delo ci quraan yi suñu borom subhaanahu wa taala mu ñu koy mu ñu koy fàttali di ñu wattandikuloo loolu. mooy que ne wattaqu fitna laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa. waalamu anna allahu shadidul iqaab. moytu leen fitna yàlla mu ngi ñuy wattandikuloo fitna parce que fitna du lo du yem ci loxol borom xam leen ne yàlla de ku tar la ci mbugal. yàlla mu ngi ñuy wattandikuloo fitna parce que fitna du yam ci ki nga xamante ne moo sabab waaye day dem ba sax ba laal ñi nga xamante ne nii sabu sababuñ fitna boobu uh-huh. loolu la ñuy wax loolu la wax ay ay dem ci bopp borom uh-huh. <laughs> voilà parce que benn affaire mooy tàkk fële rek mais dana dem ba laaw ñoo xam ni seen yoon newu ci quoi uh-huh. kon nañ ragal fitna bu baax a baax euh, léegi nañ indiwaat hadis remplacé ko fiq bi rek beneen hadis rapidement rapidement. alhamdulilah dafa nekk loo xam ne jullit bi yonent bi alayhi salaatu daf koy dànkaafu ci buntu boobu noonu naan ko na moytu. na moytu ndax jeexintalam dafa rëy mu de li nga xam ne moom mer. mer ndax nit nga xam mer na mën na def lo xamne du ànd ak sagoom bu pare day nek lo xamne daf koy rëccu. mo ta ali sallallahu alayhi wasallam di wax ne. laysa shadidu bi sura innama shadidu man man yamliku nafsahu inda al ghadab mu ne am kattan de nekkul ci la nga xam ne moom mooy mën a xeex mun a doore waaye dëggintaanu kattan mooy ki nga xam ne bu meree day mun a maîtriser mer bi ndax dañuy naan nit ki mu ñu ne mënuñu ne doomu aadama du mer mais dañuy naan na li nga xam ne moom mooy mer boobu noonu. macha allah kon njàmbaar daal nekkul ku la tooñ rek nga fàdd dóor faj ko mais yonent nee na njàmbaar dëgg-dëgg mooy ko xam ne boo ko merloo ba mu mer day day freiné. ah naat meram toog ànd ak kalmam ak dalam mel ni merul loolu nag mooy <laughs> doole dëgg mooy de mer bu màmmee nga téye ko ba du dem waaye koo xam bu mer mi génn na nga bàyyi dem moo amoo kattan amoo doole ak leer macha allah euh, adam yaa adam uskun anta wa zawjuka al janna <laughs> bismillah naam bi ñuy def ci hadis yonent bi alayhi salaatu wa mooy benn jikko bi nga xamante ne nii dafa tasaaroo suñu société bi hmm. mooy jikkoy tooñ jikkoy jikkoy tooñ tooñ de baax tooñ hmm. suñu yentu alayhi salaatu di wax ci benn xadisul qudusi yàlla subhaanahu wa di wax naan inni xaramtu zulma ala nafsi hmm. wa jaaltuhu baynahum muharrama fala tazalamu yàlla ne man ma man mii de maa xaraamal tooñ sama bopp ma def ko mu nekk lu xaraam ci seen diggante kon bu leen di tooñante tooñ nak dafa nek lo xam dafa répandre ci société bi da ngay ëppale nit doole tooñ ko ëpp ko daraja tooñ ko ëpp ko fit tooñ ko wala wala leneen loko ëppale nga dal di koy tooñ te yàlla daf ñu tere ci làmm ñu yonent bi ci hadithul qudusi yonent bi tere ñu tooñ parce que tooñ ay lëndëm la comme ni nga waxé waxee inna zulma zulmatun yawmal qiyamah ay lëndëm la ëllëg yawmal ma sha allah kon tooñ worul sunu borom nee na moom ci boppam dafa xaraamal tooñ ci boppam ko <laughs> allah mooy yàlla du tooñ wa ma allahu bi zallamin lil ibaad mu ngoog abid euh, yàlla nee na du ma tooñ sama jaam kon book bu leen tooñante tooñ wóorul kon léegi dem nañ ci culture générale rapidement Amadou Wuri Diallo Amadou Wuri Diallo dañoo bëggoon nga wan euh, nga wan ñu nga jox ñu benn benn euh, réew benn réew hmm? euh, boo xam ne nii see la commencé quoi see réew ci ci Amérique yi la nag ci Amérique yi la nekk balaa nga may indil Chine ci Amérique yi la nekk <laughs> nekkul Asie. Eh, eh, Canada. Canada macha allah <laughs> le Canada macha allah Adama Diallo. yow nag dañoo bëgg nga indil ñuy benn benn réew yo ah nag ci Asie la nekk hmm? boo xam ne ni A la commencé A continent Asie hmm. Afghanistan Afghanistan macha mu ngoog lii daal mooy yàlla moo ñu ko baaxee nii euh, ñaari champion ñoo fi ne xanaa nii ñu leen di tàqalee rek mooy sànq ca salaatul wus wustaaba Euh, ba kii woon fa lañ koy indi rek mais euh, ñaari champion ñoo fi nekk rapidement ku nekk kàddu yu gàtt euh, wuri waaw alhamdulilah xanaa di leen gërëm ci dalal bi xam ne dalal ngeen ñu ko may ñu opportunité ñu a fàttalante ak ñi nga xam ne mooy suñu bokkul jullit ci loo xam ne day aju ci wàllum diine hmm. ñaan borom boo leen ci xam ne bu ñu déggee kàddu dañ ciy jël li nga xam ne mooy ci a rafet amin amin waaw donc yaa ngi nekk école polytechnique supérieure école supérieure polytechnique de Dakar de Dakar macha allah donc boo ko gisee da nga naan ab ustaas la nekkete <laughs> ab technicien supérieur yàlla bu leen cat dugg Adam kàddu yu waaw ginnaaw ba ñu teewee fii rafet lu jotaay bi di rafetlu tamit euh, xam-xam bi nga xam te ne sama mbokk mi doon na ko leeral ko jullit ak yow tam hmm. <laughs> na yàlla nekk yàlla nekk ngëneel yàlla nekk loo xam te dañ koy jëfee yàlla nañ yàlla may ñu ñu mën gis dëgg ba mu wërsëgal ñu ñu topp ko. amiin amiin moytu tamit euh, mu may ñu ba ñu gis neen mu wërsëgal ñu ñu moytu ko. jërëjëf. sallallahu wa sallam wa barik ala yow ku ñàkk ki ñaan nga yaa ngi nekk ak benn waaye nga yaa ngi rafetlu xam-xam lii mooy jullit non yéen daal euh, macha allah nga ne yaa ngi ci daara ban. daara xam sa diine bu Oustaz Abdoul Khadir Diatta bu nekk Tëngéej. Tëngéej jazakumullahu xayran kon mu ngoog yaakaar naa ni kontaan nga. xam-xam génn na def naa jël nga sa kii bu baax euh, bu bëggee bokk ci émission bi wala nga bëgg cee